madame messieurs les ministres maa ngi leen di nuyu ak seeni collaborateurs madame la ministre jot na réponse yi nga ma envoyé ci question yi ma posé woon ci euh, commission mais dama jàpp ni da nga ma wul ci li ma doon laaj par rapport ak vaccin Sinopharm lii mooy passe sanitaire ce service ñoo ma ko joxoon bi may voyage alors bi ma demee il s'est trouvé que code barre bi buñ ci tegee appareil bi dafay rouge ñu ne ma passe sanitaire bi baaxul et pourtant maa ngi jël sama première dose le 24 février 2021 deuxième dose bi le 17 mars 2021 donc man pare naa sama série vaccinale donc soo ma tontoo ni ma naa continuer sama série vaccinale damay xaw a jaaxle ndax ñun jëndaluñu suñu bopp vaccin yi état du Sénégal moo jënd vaccin yi jox ñu ko te ñun bi ñuy accepter di jël vaccin bi boobu Sénégal jàpp naa ne ñi ko accepter bariwul mais en tant que maire ñu joxe la bon exemple njëkk joxe suñu loxo. man bi may accepté di vacciner wu président de la république vacciné wu gul woon donc jàpp naa ni war ngeen ñu wax explication yi tax ngeen jox ñu vaccin ñu vacciné wu ndekete bu ñu demee Europe du ñu accepté vaccin bu mel noonu loolu responsabilité ce ministère la alors ñu ngi leen di sant bu baax nag ci li nga xamante ni décidé ngeen ko def ci hôpitalu Kër Massar centre de santé wu Kër Massar les services du ministère du budget wax nañ ma ni war am na 700 millions yu ñu prévoir ren ci centre de santé wu Kër Massar lu am solo la centre de santé bu yëmbal jàpp naa ni remplir na toutes les commodités pour mën a nekk tey benn hôpital des niveau un mais yëmbal noor la nekk maa ngi remercier bu baax su ma suma nattango bi dëkk Malika donc hôpital boobu yëmbal noor la nekk nekkul yëmbal sud et leneen li nga xamante ni moo ci des muy plaidoyer bu ma defoon pour waa jaxaay muy hôpitalu jaxaay ku ne xam na ni 2007 la liggéey bi commencé woon mais mujjut a yegg et jaxaay ak Kër Massar Sud dañu bokk ci communes yi nga xamante ni ci nouveau département de Kër Massar ñoo gën a sonn seeni maires yi sax amuñu hôtel de ville boo xamante ni mën nañu fa mën nañu fa nekk et en termes de structure sanitaire aussi bëri na lu fa manqué donc hôpitalu Jaxaay boobu c'est vrai que wax nga ni ministère des finance ñu ngi leen ci war a accompagner pour ñu régler li nga xamante ni mooy le gap financier bi ci desoon mais loolu dañ ko weesu woon quand le président de la République avait décidé diriger Kër Massar en département daf ñu waxoon ñun les cinq six maires yi fa nekk ak le président du conseil départemental ñu def benn CRD spécial CRD spécial boobu li ci génn mooy la fa jot a nekk en terme de gros œuvre dañ koy raser ba pare tabaxaat hôpital bu bees donc jàpp naa ni en rapport avec le ministère de collectivité territoriales war ngeen harmoniser pour xool ba xam fan ngeen ci toll du gàpp bu ñu war a defaraat ndax foofu tuile ya fa nekkoon ña ngay wadd mur yi fissuré nañ te zone bañ ko def dafay taa donc il a été décidé ci li nga xamante ni moom mooy CRD spécial boobu ni war nañu mën a raser complètement dugalaat fa xaalis pour defar bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy hôpital boobu beneen mbir bi ci des mooy euh, ñun en terme de euh, collectivité territoriale comprendre nañ suñu rôle bu baax a baax mais dañuy bëgg beaucoup plus d'implication parce que nous savons effectivement que la santé fait partie des domaines de compétences que l'État du Sénégal a transféré aux collectivités territoriales moo tax du ñu xaar état ci lenn lu bari je donne l'exemple de Yeumbeul Sud comme les autres maires sont en train de le faire nous nous avons construit un poste de santé il y a cinq ans cette année nous allons construire benn maternité à hauteur de cent soixante-quinze millions de francs CFA mais leneen li nga xamante ni moo ci des rek mooy plus d'implication parce que nous savons que ni nous sommes un démembrement de l'État et lépp li ñuy def aussi dañ koy def pour accompagner l'État du Sénégal à travers euh, li nga xamante ni mooy politique publique ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm.